voilà kon gis ngeen ko noonu ah. après combat Modou Lo Boy bi nga xam ne Modou am na ndam ci kii nga ne moo di Boy ndam loo xam ne si nii ndam lu leer naa ñu la ndam lu kenn dul werantee di ah. coow li bëri woon na waajaay bi yàggoon na. waajtaay bi yàggoon na ah mais aussi tey jii yàlla la yàlla ki nga xam ne moo di Modou Lo moom la àlladaay kon mën nañoo jàpp ne ah. Modou dafa conservé li nga xam ne moom moo di trône di roi des arènes bi da koo yóbbuwaat fële nga xam ne moo di ca parcelle tey nag yaakaar naa Pikine xol yi du neex. waaw Pikine moom yaakaar naa tey xol yi di neex ndax tey ki nga xam ne moo di Modou Lo yaakaar naa ne jeexal na tàkk Pikine waaw jeexal na tàkk Pikine dara di suuf xam naa dañuy góorgóorlu ak ñun te samp fa benn boo xam ne si nii moom ah. spécial dañ ko noonu xale yaa ngi noonu ñoom meew la laaj. ginaaw bi nga xamne seen mbeur dafa daan ah gis ngeen ni ambiance bi tay fi ci Thiamène diwan bu Thiamène ah rawatina quartier bi nga xamne mo moo di Pasto am nañ ñaaw ah, am ah, gis ngeen ko ah jox lañ leen meew meew lañ doon laaj ñoom ambiance baa nga nii ñëpp génn nañ tey ci mbedd yi nii dafa mel na tey foo sànni mbàtt mu tag waaw ah, foo sànni mbàtt rek mu tag ndax mbooloo moo xam ne ni mu bare bare takku mëtloo comme ni koy waxee rek bayra bi ko yàlla suñu borom may may ko kenn wax dëgg yàlla ñi ñëpp ay fansam lañ tey tey yaakaar naa képp koo xam ne ni nga wala képp koo xam ne ni tey da ngay bëgg rek kontaan nga waaw ndax làmba ji ba ba jaay ko jotee jaay nañ ko bi bëre jotee aussi tamit bëre nañ booy ki nga xam ne see moo di mën loo démérité wul ah du moins ki nga xam ne moo di booy ñaam moo aussi tamit démérité wul wax dëgg yàlla am waaw daan na aussi ki nga xam ne tey moom mooy Balla Gaye 2 nga xam ne tey moom moo fi nekkoon ah, roi des arènes fee ca Géejawaay waaw bi ñëwee Balla Gaye moomu daan Modou Lo ñaari yoon kon tey bu ñëwee aussi tamit moom it Modou daan ko te Modou Lo aussi na ki nga xamne modi moo sen dan fi timit lu yagul dara euh, ki nga xamne modi moo di Ama Baldé kon lol timit ay mbir la yo xamne ni lu mata defat jangal la bu baakha baax ndax ñom est ce ñom biñuy beure ak Modou Lo paré wala ñu à 100 pour 100 ak mom ndax ñom ñoroon na ñor go xamne suñu aussi timit waro nañu beure ak mom wala dara wa mais lu ci mëna doon dal ki nga xamne mom modi moo Lo gis ngeen que jakarta yaa ambiance bi fay continuer ah mbedd ngi gëna a xam nga tey ñëpp a ngi jubilé wax dëgg yàlla am fan si Modou Lo yi ñëpp bëgg nañ ñëpp kontaan nañ vraiment ginnaaw bi nga xam ne Modou Lo daan na Ama Baldé yëkkatiwaat daanaan kii nga xam ne moo di Boy Niang kon man nañoo jàpp ne kii nga xam ne moo di Modou Lo tey jeexal na Pikine tàkk moom amatu fii ci jamono yi may wax rek benn mbër boo xam ne nii dañu mën nañoo wax ne la bëree ak Modou Lo amatu ko kon Modou Lo jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la wax dëgg yàlla jàmbaar la amatina ndam mais lu ndam li lu mu bëri bëri lu mu yaatu yaatu xam ne ndam li du génnul Sénégal waaw ndam li génnul Sénégal wax dëgg yàlla léegi nah, di jubilé waa Kër Modou Lo yi ah gaa yaa ngi andi di kaabare et tout ça gis ngeen ko nii ambiance boo xam ne nii macha allah film ci sax yombul ndax poussière bi bari na trop trop. ayca comme niñ koy waxee rek média moom lépp lu leen di bëgg rek ci lay dox quoi. Thank you lihat TV voilà gis ngeen ko noonu ambiance baa ngi continuer ah xale yaa ngi ci mbedd mi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla waa kër Modou Lo comme ni ñu ko waxee rek sànq kontaan nañu bu baax mag ñi génn nañ ndaw ñi nañ Thiamène ayca ngeen ànd ko comme ni ñu koy waxee rek saa su ne seen télévision Média TV nga xam ne ci lu leen di bëgg rek ci lay dox ci lépp loo xam ne nii da leen bëgg rek da lay dox rawatina fii nga xam ne moo di diwaan bu Thiamène incha allah lépp loo xam ne nii xew-xew la ak événement rek incha allah bu ngeen ko dàkkee ci Média rek da koy daal di am. ay ca ki leen doon jëlal petit reportage bi seen mbokk seen xarit Ousmane Ngiraan la woon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ñaanal ñëpp atum jàmm ak naataange ak salaam ak yëpp ci barke yonente bi